testu tey bi testu tey bi fi mu tombe day na waar ci biir ndox mi la ilaha illa ndaw si dafa feebar feebaram bi nag mooy feebar bi nga xam ne kuñ ko waxal ñëpp daw la preuve mooy ba mu fi dikkee keroog ku ma ne enregistré ko nga puus bu toogee ndaw sa sées ba mu toogoon mu jógee am na ku may cokkaa sax naan ma man ñemewu ma cee toog te xamuñ ne jàngoro jooju dafa am nuñ koy wàllaatee waaye ay jox nit ki loxo mu toog ci sées ak yooyu wàllewu ko jàngoroy sidaa la yoo ko tuddee rek day fit yëpp ni tës ndaw si nag ma jigéen Fall daal mooy ndaanaan quoi sama xarit bu baax boobu ma reetu jëndee li muy def moom ci temps rek la ko teg ñëw dajale waa kalaasam yëpp organiser ndogu dafa am njariñ uuteeg man mi dégg nga ndaw si maanaam ci métier moomu lay yëngu chimère métier moomu nga xam ni xale jigéen ñi dañuy jaay seen bopp ndaw si nag fi mu nekk nii am na sida na mu ko dalee ndaw si ba xam bàyyi na métier mi ma léegi waa wala déet kañ la ko dal daa luye néeg moom kese tës bi kéemtaan na genn xeetu kéemtaan goo xam ne maara di tali ndaw saa ngi maa ngi dem polyclinique bi nag dañ may jox samay garab ma koy naan waaye kenn xamalu ma dara fii rek laa ko musee ñëw joot yenn saa yi sax ñun ñooy jënd suñu bopp ordonnance te génn bi nukk chaque jour mu neex yenn saa yi nga génn doo am dara mais feebar bi lan la
feebar bi doomu jàngoro bi la doomu jàngoro ban sida waaw waaw mais yow est-ce que fàttaliku nga kañ kañ lañ la wax ne la moom moo la dal
am na ñett at
trois ans waaw léegi yow fan la la dalee woon
defal ma ku ma àndaloon moom moo ma ko wàll xamatuma nag gisatu ma ko kooku sa lan la woon waxal ci kaw kooku sama xarit la woon
maanaam da ngeen daan génn yéen ñaar waaw dañ génn ñu de dañoo daje woon ci ñu libéré mu proposé ma cinquante mille xamoon ne yor na feebar bi après ba may dem nag di def visite def visite après si la ma médecin yi woo ne ma soxla na la ne si laa ñëw mu toog ñun ñaar kese ci bureau bi ñu waxtaan ñu expliqué ma ko mu ne nag du dara nag lii mun nga jël say garab di ko naan kenn du la xamal dara looy def def ko sutura bu ko wax kenn dina am dañuy gis garab bu ko mën a faj boobu laa si pare ba léegi su ma ñëwee ñu jox ma sama garab ma naan kenn xamaluma dara
mais mais yow jour bi ñu la njëkkee wax ne la am nga jàngoro yu sida bi lan nga sentir damaa daanu waaw da ngaa daanu lu tax
yaakaaruma ko woon après ba ñu ñëwee ñu woo sama yaay sama yaay bañ ko ko expliqué sama yaay si la commencé tension bi jóg nag mu feebar nag ba mu si gaañoo maanaam daal sa yaay daal bi ñu ko waxee ne ko daal yow da nga am jàngoro yu sida loolu moo ko daaneel daanaka waaw ba loolu tam moom moo ko moom moo ko moo tax mu gaañu daal waaw jàngoro boobu moo ko yóbbu waaw waaw mais mais mais mais yow euh, ban métier ngay def lii rek laay def métier guddi daal da ngay jaay sa bopp waaw Mhm. mais mais mais mais mais yow bi ngay jaay sa bopp noonu lan moo tax euh, sóoraale woon loolu xanaa daawoo jëfandikoo yenn yi boobu xaw ma ko woon boobu dama amoon ma ñëw fii di wut liggéey ma am ku ma dajal kooku ñu dugal mu dugal ma si milieu bi kooku mu ngi si milieu bi ba léegi xaw ma woon ne sax lii dina am góor la wala jigéen jigéen la jigéen la waaw après mu jël la daal dugal la ci milieu bi ngeen di ànd ñu ngi ànd Mhm.
ba benn jour am ku ma gis ma expliqué ko sama problème mu ne ma léegi dama lay yóbbu polyclinique après nga gisante docteur xaw ma kan après si laa dem mu boole maa ko ko defal ma test après ba ma ñëwaatee ba ma njëkkee ñëw ñu ne ma mënoo am pièce parce que da ngaa tuuti su ma ma toogoo am pour carnet après ma dellusiwaat ma ñëwaat ñu doog ma jox ne ma naa def photo yi di central ñaari photo ma ñëw jox leen ak sama kii ma jox leen carte d'identité bi xanaa yow boobu xale nga boobu xale laa bi ngay dugg ci métier mi ñaata ñaataat nga amoon may am côté bi juróom fukki at ak juróom 15 ans voilà moom nga duggee ci métier mi nii waaw yow kooku dugal la ci noonu xanaa yow euh, bi mu la ciy dugal euh, laaj laaju la say at ak yooyu non laajuma ko de te ñi doon sëy ak yow tamit noonu di la fay tam xanaa xamuñu woon ñaata at nga am déedéet yow xanaa xamoon ne mu ne mineur nga xaw ma ko woon hein?
booba dama naan wóor rek di dem xaw ma ko woon.
xamoo woon say at dé- déedéet dama naan wóor rek di dem.
xamoo woon ne majeur fukki at ak juróom-ñett la commencé.
waaw xamoo woon loolu quoi. ah moo tax ba may ñëwee dañ ma dàq ñoom ñu ne duñ ma teel a jox pièce parce que dama tuuti. après si laa incité ba ma ñëwee ma ànd ak ndaw si ñu expliqué leen si lañ may doog a jox sama pièce.
yow ñaata at a ngi nii nga ne ci métier bi yàgg na de yàgg na léegi ñaata at nga am. hmm?
xaw ma woon nag kan la.
an sa carte d'identité moo nekk nii. ah ok 79 nga judd quoi. ok waaw lé ma ne yow lé léegi léegi yow say say say mbokk est-ce que wax nga leen ko pour ñu jàppale la ci wàllum paj geeg yooyu.
déedéet ñoom yëguñu ko bugguma ñu xam ko tamit ñu yàq sama der ni ñuy xanaa xamuñ métier bi ngay def.
xam nañ ko de waaw métier métier moomu ngay def noonu di jaay sa bopp ak yooyu ñoom xa- xam nañ ko. est-ce que nekkuñu instant bi di yàq sa der.
xaw ma hmm?
xaw ma du ma tuddanteeg ñoom doo tuddante ak ñoom. mais ñoom xamuñ ne da ngaa am jàngoro bi.
xamuñu ko de hmm.
déedéet mais yow yow yow instant bi yow ah, ah, ah, xamoo sa benn mbokk.
non non man sama famille rek laa xamoon sama yaay ak sama papa muy gaañ boobu maa ngi nekk xale après say ñaari mag yu góor rek moo fa des hmm.
waaw kenn ki mooy taaw bi moom moo nekk fii ñaartal day ñëw kenn ki moo nekk mbuur day dem géej moom jabaram
mais ñoom ñoom instant bi xanaa xamuñ xamuñ xamuñ yow li ngay liggéey.
xamu ko góor bi xam na ko xam na li ngay liggéey.
waaw moom day dem géej moom tamit doolam yemul noonu moom bi ngay doog a dugg ci métier mi jéemu la cee découragé ak yooyu.
wóor na ma si ma sonn
yow lu tax nga insister ne métier mi di nga ko def di jaay sa bopp.
boobu xamu woon na nii lay demee Hmm. xamoo woon ne di nga am feebar bi déedéet xaw ma ko woon wax dëgg yàlla mais xamoon nga ne métier bi baaxul. Hmm?
nit ci baax amul mucc amul mujj.
déedéet yow commencement bi lu tax buñ la ko daan tere bàyyi woo ko.
boobu xamu woon ne nii lay demee Hmm. xanaa dafa am xaalis.
ah yenn saa yi bu njëkk danga na ba mu siy doog a dugg naa si doon am ay cinquante mille boobu sama yaay dama ko doon fenn damay liggéey bindaan léegi bu weer dee ma jël kaar kii ma jël kaar dem mbuur jënd seet jënd diwlin yóbbu ko wala korit tabaski ñëw ma jënd sama xar may ko cinquante mille boobu xamu woon ne métier bi laay def dama ko doon nëbbu mais boobu danaan ndox.
kon waa boobu danaan dox yow premier jour bi nga ci njëkk a duggee nan nga ci duggee lañ bëgg a xam.
ni ma si duggee sa premier jour.
booba dama naan dem di wër rek xam na lu ma yëkkati lool dama naan dem ay Kaolack Mboro sama mag bi dem di ma jëli après ma ànd ak benn copain Kaolack may sëy ak moom noonu sans capote boobu xaw ma si woon la dama daan wër rek di dem te mosoo ci Dem ay jëlee nar.
ëmbatam.
am naa ñaari doom waaw ci métier bi nga amee doom yi wala.
waa ñaar doom yi daf la neex wala dañoo ñëw noonu par accident.
dafa ñëw noonu dafa ñëw accident bëgguma ko woon waaye kenn ki mu ngi góor rek kenn ki moom pa taaw bi papaam nangu na ko mu ngi mbuur ñu ngi mbuur.
waaw màgg na léegi Mhm. yow fan nga njëkk a sëyee fan nga njëkk a defee rapport sexuel maanaam jotee góor mbuur mbóor waaw mooy papaay sama taaw bi papaay sa taaw bi waaw après ma ñëw fi ma am ku ma ëmbal fii Dakar kooku nanguwul biir bi moom mu bañ quoi waaw ba may am doom dañ ma opéré pour ñu affaire bi bañ a wàll xale bi instant yi xale bi amu ko mu ngi gore Ah, kon mi ngay am doom boobu fekk na nga xam ne am nga jàngoroy sida waaw Hmm?
waaw moo tax ñu opéré ma moo tax ñu opéré la waaw.
waaw mais ma- mais mais instant bi ne yow ana ñi nga bokkal ñi nga bokkal métier mi ana ñu A- association ngeen def wala yow kese la non non assistance ma avant lañ def association ngeen def groupe ngeen quoi waaw groupe la génnkat yëpp yéen ñëpp yéen a bokk daal néeg ak ñoomin seen bu weer wi dee da ngeen cotiser noonu bokkuñu néeg de sa mun nga bokk ak nit néeg mun na la gis sa garab mu daw la mu dem wax ko keneen moo tax man nga jël sa néegu bopp waaw ñoom médecin yi ne ma bul bokk ak kenn néeg parce que mun na la xamal mu dem toogal la yàq sa der mais yow instant bi yaa ngi ci métier bi ba léegi ba bi ngay ñëw fii déedéet man guddi gi la rek laay génn amul lu ma fayee sama néeg maa ngi ni jot ak sama dëkkandool pour loolu d'accord dama ne kon ba instant bi nii yaa ngi ci métier bi ba tey xam ni may def lan laay lekk ku may jox yow ñaata ngay fayeeku dix mille wala quinze mille dix mille wala quinze mille guddi gi yëpp wala
non non ku ma da- ànd dajal rek
moom daal bu doyalee rek après mu dem non non benn yoon rek laa sekk ak moom mu dem yoonam boo ko satisfaire benn yoon après mu dem keneen ñëw léegi guddi gi yëpp nag ñaata la
yenn saa yi ma ànd nit mu may ma vingt mille ma fanaan bu ba fajar bu ñu def ñaar rek ma fajar ko mu yeewu mu ñibbi
léegi moom moo lay yóbbu am yow yaa koy indi sa néeg déedéet moom moo yóbbu wala ma yóbbu ko sama kër Hmm. est-ce que loolu am na sécurité
waaw yenn saa da ngay daje ku baax nga daje ku bon mu génn la paaka bu sëy ak yow noonu loolu am na waaye dañ koy il faut nga def ko force boo ko defu teemu rey la man si laa jëlee sida bi su nga jëlee sida bi waaw waa ji paaka la ma génneel téye ma boîte la ma jëlee temps boobu laabul tëjagul mu téye ma ba deux heures ba neuf heures si guddi mu jël ay vin teg jël paaka bi teg bu paree tux yàmbaan teg paaka bi su ma bëggee yuuxu mu ne boo yuuxu ma lay rey waa kër gaa ngi si biir ñun ñaar kese si biir néeg bi
deux heures ba neuf heures waaw mu muy mu fanaanoog yendoog sëy ak yow waaw ma génn mu gunge ma ne ma boo fi wax rek ma lay rey waxuma dara noonu la ma dàkkee te moo la wàll sida bi it waaw te ba ma ñëwee ma ànd ak police yi gisuñu ko ñu ne fi dëkkoon toxu na ok d'accord yow léegi sa sa- sa portable mi ngi dox waaw ok après nga bàyyi sa numéro dégg nga waaw ok merci beaucoup